rabbika bi majnuun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yal na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te wér te yàlla bàyyi fi mbooleem sun kilifa diine yi sàmm Sénégal def fi jàmm <coughs> def fi xéewal <coughs> def fi sutura def fi teraanga maa ngi ñëw nag ci lu gàtt newoon naa sax lu mel nii man duma ci waxati ndax bàyyi naa ko ci sama gannaaw li ma jub lu mooy màggalu 2025 incha allah di ñaan ñu fekk ko jàmm te ànd ko Cheikh Modou Mountakha ba lépp loo xamante ne bii ab cër la bu ñu ci dénk ñu war koo taxawee ñu man koo def nammate sëkk te xëy na li waraloon coow li ren sax mën nañ koo bañ a soxlaati incha allah ndax ni taalibe Sëriñ Tuubaa yi <clears throat> takkoo gis ne ñun luñ mës a def ñoo ko defal suñu bopp àddina nag boo ci sëqee ak ay nit ay teraanga am na yoo xamante bi doo ko gàntu daanaka loolu moo indi woon yooyu yëpp bi ci seytaane duggee nag ba indi ji mu ci indi ñu bari defe woon ne xëy na man euh, dina doon mbir moo xamante ne xëy na dina ma euh, maanaam laal sama dignité wala lenn far mbir ma mel ni dafa wëlbatiku ma sant yàlla ci ne yàlla moom gëmmut nelawut ñi ci juum mën nañu leen jéggal seeni njuumte ñi ci bëggoon a ruuru itam ngir di ci dox yeneen tànk yàlla weer na leen defe naa ne man mi doon wiise mel na ne bu dee dañoo diiroon mooy nañ te buñ ciire woon itam lañ ciire woon delluwaat na ci ñoom mu am nag ay wax yu bari yoo xamante bi bari na li ci mujj nag te soxal ma tey xëy na dinaa ci laalaale yeneen waaye mooy li ñuy wax naan dafa am ku ko bind ñu wax naan ci ab page euh, Facebook la ko bindee ñu wax naan kooko nee na présidence de la république lay liggéeyee man yooyu yëpp awma jot pour di ko vérifier wala ma di ca tontu li wér daal moom mooy man lettre bi ma bind ñama ko bind xam nañ la ca ne man ñu ko bind xam naa li ca ne nan la nit di mën a xalaatee dalal ay ay ñaar fukki gan ak nangam nan lañ ci mën mën a laaje ay ay milliards léegi nag man damaa génn wax fàng ndax kooku dafa bind waaye man du bind damaa wax fàng ne man nii Cheikhouna Bara Falilou Mbacké président du commission des relations extérieures du comité d'organisation du Grand Magal de Touba képp ku ma gis nga génn def ni ma def wax ne leetar bi ma bind dama caa laaj nangam milliard wala nangam bu ko defee dinaa ko yóbbu ci yoon mu tontu ci yoon indi ay preuve su ko amee te defe naan du ko am ba mukk du ko am ba mukk kon nag man ay wérifier page Facebook ak fee la jógee soo tontoo boo ca baase woo ñu naan moom ak keneen a ko créé ak yëpp man dugguma ci ak xool organigramme bu présidence lépp mën naa ko ndax xam naa luy état mais liggéey naa ci état kon nag yooyu yëpp man euh, taxumaa jóg ki nga xamee ne daal mooy wax loolu bu dee lim wax dëgg la ci moom na génn ne fang ni ma génne ne fang wax loolu bu ko defee bu soobee yàlla dina dina dinaa ko yóbbu ci yoon mu mu leeral ko ak yoon génne ay preuve loolu moom pare naa ci kon kon bu ci ké feeg nit amut fit génn def ni ma def wax loolu rek man waxatuma ci loolu waaw kon waxatuma ci loolu kon défi bi may lancé mooy képp ku wax loolu ñame génn fàng amul ay bind fii ay contact ak ak lañ ca mën a wax li ma noonu nga wax ko bu soobee yàlla kooku dinaa ko yóbbu ci yoon mu génne ay preuve man sama leetar ñu ko gis gis nañ ko fa ma ko bind xam nañ ko dégg nga teyit mën naa révélé ne fukki sàmbur ak juróom lañ ci laaj lañ ñu daan jox dégg nga ak juróomi suite ay oto tam juróom benn oto lañ daan jox léeg-léeg ñu jox ñu biis am na ku ma dégg nag mu ne daaw joxuñu kooka juum na daaw oto yi dafa yeex a ñëw bis bi nga xamante ne bii gan ñu commencé na ñëw ba noppi la ñu doog a libéré oto yi fekk sax ñun luyee nañ ay oto delloowuñ ko nag jël nañ ko ngir teraanga utilisé nag ko ba mu jeex ñu delloo leen loolu tam moo waral oto ya bañ ca daataa jot ci procédure bi ñuy def ba gan ñu commencé ñëw ñu far annulé ko jël ñëpp yóbbu leen Touba. Euh, bañ fa jógee maanaam ñu jëlee waat leen Touba yóbbuwaat leen ba aéroport moo tax daaw soxluñu hôtel waaye moom lañ daan laaj nañ ko daan laajee la ñu ko joxe. beneen euh, bi tam mooy ñu xamal ñëpp ne ñun am nañ fuñ daral suñuy gan am na ñaari immeuble yoo xamante ne bii bu ci nekk huit appartement nga ca euh, quatre étages la étage bu ne huit apartement nga ca ak ñeenti suite waaw beneen bu ci nekk wala euh, waaw loolu la sax euh, ñeenti étage ñaari immeuble yëpp loolu la gan yi képp tax kenn dëkku fa amaan nañ beneen boo xamante bi euh, ba fa madd bu fa seeni defoon ñett wala ñeenti étage gan ñi dëkk fi biir réew mi lañ lañ fay dal amaan nañ yeneen ñaari suite présidentielle ak salle de conférence ak maanaam euh, réfectorat boo xamante ne bii ci këru Daaru Manaan bi nga xam ne fi la gani bitim réew dal sans compter euh, fi nga xam ne mooy héliport nga xamante ne bii képp kuy euh, waa Mauritanie ñoom lañ fay dalal kooku moom itam kenn ku si ne suite présidentielle la nga fa ak ñaari immeuble yeneen donc kon ak kër Sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji kon ñiy wax ñun lañ ñu daan jox pour gan ñi bu ñëwee duñ ñëwandoo ñu dajale leen fa dégg nga bañ ñëpp ñëw ñu def leen ci combat andi leen képp képp lañ ko daan daan doyee bu màggal gi jeexee itam ñu yóbbuwaat leen kenn ku ne dem selon sa wol bi nga war a dem kon tey ku ciy wax ay demande milliards kon defe naa ne da nga xamut li tax ñu ma dégg ñuy wax naan nan la ay gan dale ki nga fax di di ñëw nuyu sëñ bi delluwaat ñooñ ñëpp xamuñ lu ñu wax man ci mbir mi laa gisee ne ndekete Sénégal loo gis ci réseaux sociaux yi rek buñ ko waxee ci nit bay boo nga def ndànk ba xam ba xam ndax dëgg la am déet ndax ñi ngi demee la ko fekk la keneen kii wax ñi ñi may wax di ma taxé naan ay politicien la nangam man politique ba ba ñu ma ko ndax euh, boo ko tegee fa nga ko war a teg dara nekku ci xanaa kay nga ànd fi ak naafeq ak ay parparloo euh, ak itam maanaam euh, tax doo seet dëgg doo topp dëgg ñu koy def man waxuma leen dara waaye man su ma doon politique ci boppam du ma but kenn musta gis man foo xamante ne bii maanaam nee naa ci benn parti laa bokk wala fenn laa politique waaw politique yoon wu ma ci mas a jaar tam forme woon damaa kontar waaw loolu ku ci soxla itam ma moom mën na cay dem ñaar ba mooy fu ñu ma déggee ma wax diine lañ song donc ñu ñu may topp ñëpp ku ci am benn déclaration wala benn taxawaay boo xamante bi man taxaw naa naan wiiw kenn nga génne ko woon ma waaw kon man fii ma nekkoon di fa liggéey Cheikh Sidi Mokhtar 2017 ci ndigalam lañ ma dugal affaire étrangère ma nekk conseil ci ambassade bu Sénégal bi nekk Abu Dhabi 2022 tam sëñ Mountakha lañ woo nit kilifa du la dégg njabootam di dégg nga di ko dooral laaj ko kenn ci njabootu sëñ Touba dégg nga ñu dugal ko ci diplomatie bi def ko ambassadeur Cheikh Modou Mountakha man moo ma tànn kon bu ñu santee président Macky Sall mi nga xamante ni ci loolu ci ay loxoom la jaar ñaar yëpp ci ay loxoom la jaar ba pare waaye man Cheikh Modou Mountakha laa ko sante ndax. jékki-jékkiwul tànn ma déedéet sëñ Muntaxa la tànn loo sëñ Muntaxa tànn ma ñu bari xamuñ loolu ba tax lu ne ñu ngi ma koy taxé man bañuma ko foo ma nekkoon di fa liggéey itam ba ma fa nekk di fa kenn ku ne xam ne ne man mbirum politique ñoruma duma xool kenn ngir sa coloration politique ay citoyen sénégalais laa xam ne te loolu ñam nekkoon fa may liggéeyee xam nañ ko am na fa ñu bokkoon ci beneen parti ñoo xamante ne bii ñi ñuy wax naan catalogue nangam ba ma dikkee fekk leen ñu bundoxataal leen eh, mettre leen au frigo man ba ma dikkee dama leen a delloo kenn ku ne ma jox la sa gëdd malgré maanaam eh, bu wuuteeg la nga xamante bi moom la yenn kilifa yi xalaatoon mais dañoo respecté sama décision xam ne kat man sénégalais képp laa gis gisuma ko bokk fenn ba mu des nag koo xamante bi liggéeyam da caa boole mbir politique loolu fa ma nekkoon ku fa laaj loolu xam nañ ko waaw nguur gi fi nekkoon tam dafa respecté samay principe bàyyi ma ca loola. kon loolu euh, man mooy tontu ñi nga xamante bii fu ne lañ may dëkkale lu ne la ñuy wax te la ñuy wax xamuñ ci dara euh, toujours nga dégg ñuy wax loo xamante ne bi xamuñ ki ñuy wax ci moom kan la xamuñ li ñuy wax nan la demee ma leen ñaan nag ñu gën a maandu te gën a am retenu xam ne kat maanaam euh, tooñ dafa baaxu ñàkk xam-xam baaxul par parloo baaxul nit dafay war a maandu ñaan naa yàlla nag su ma ko seqatoo nag ay nit ñoo xamante bi maanaam de basse classe yoo xamante ne bii réseaux sociaux ci boppam lañ defe ne lu leen ci neex mën nañ ko ci manipuler lu leen ci neex mën nañ ko def nañ arrêté nañ arrêté te xam ne feneen la ñu loolu ba des fii waaw jëkkuñ ma ci communication kënuñ ma koo xam dégg te defe naa ne maa ngi leen di wax ñu arrêté moo gën ci ñoom ñu arrêté waaw man noonoowuma kenn respecté naa ñëpp du ma jàll kenn du ma dépassé kenn kon nag bu fekkente ne bii fu ñu làmb dégg nga mën naa ne sax dégg nga yàlla maanaam bañ leen a far am na ñu commencé gis yoo xamante ne bii sax moom euh, maanaam euh, doonuma ca dara waaye nag nañ xam ne yàlla moom bëggul kuy tooñ yàlla dafa bëgg ku maandu ndax yàlla dafa maandu kon maa ngi jégaluwaat ñëpp ndax bu amee ñu bari ñoo xamante bi bëgguñ moo waxaat ci ci mbir mi waaye am ñoo xamante ne bii encore dëgg lañ bëgg di xeñtu dëgg da mel ne dëgg gañ amoon dafa am ñu ñu koy bëgg a xajamal ci ay manipulation ma xamal ne manipulation du jàll ci man waaw du jàll ci man ndax sant naa yàlla xam naa li ma war a wax fa ma ko war a waxee ak na ma ko war a waxee may ñaanal Cheikh Mourou Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba màggalu 2025 lépp luñ ci bëgg ci ak jub ci ak euh, maanaam euh, yéwén yàlla defal ñu ko te ñu ànd ko Cheikh Mourou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.